oustaz Mor Thiam salaamaaleykum. waaleykum salaam. wa rahmatullahi wa barakaatu. Haji Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziyaara. jërëjëf oustaz yóbbalu bés bi. waaw Haji Babacar yóbbal bi dafay ñëw rekk di fàttaleeti. xam nga xër dañu wax ne wéy ci ndigal moo ko gën. ñun dañu bari lu ñuy waat. di waat ci sunu bopp. mbaa ci sunu mbokk. te waat. l'islam daf ko organiser kuy da ngay wat ci yalla wala nga nopi comme l'islam daf ko organiser nak te ñun ñu am habitude di wat ci sunuy bop wala ñu wat ci sunu mbokk léeg-léeg nga gis kuy wat sama géñoog bay ma ñak sama ndey am ñu xam dañuy egg ci barke yenen ci bi yoy yépp deug la dañ ko wax ci pinch mi wante wat ci yalla lañ koy def loola tax Hadj Babacar képp koo xam ne danga waat ci leneen parce que danga xam fàtte wala xamuloo sax waaye nga fàtte ba waat ci leneen dañ ko masal laaj benn boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax benn base mu nekkoon ci mufti ca màkk mu ne képp koo xamante ni ki juum nga ba waat ci leneen yu dul waxal laa ilaha illallah mu effacé njuumte bi nga waate ci leneen lu dul yàlla Hadj Babacar kon ku waat rek ci lu dul yàlla na wax laa ilaha illallah pour mu effacer njuumte bobu la Hadj Babacar. jërëjëf oustaz Mor ëllëg aljuma yobul gi muju ci semaine bi ci RFM matin